Pastef asalaamaaleykum les patriotes maa ngi leen di ziar di leen nuyu guddi moo tax mais dama bëggoon sukk sama oom ci mémoire u Mariama sukk sama om ci mémoire u quatorze personnes yu ñu boom en 2021 mais sukk itam sama om ci ñépp ñi nga xam ne ñu ngi dee ci tali yi ndax politique bu bon ñu ngi dee ci hôpitaux yi ndax politique bu bon mais li may wax surtout mooy non à un troisième mandat troisième mandat du fi amee wax leen ak man bu ko jéem bu ko dox du fi amee trois du euh, ko ah, du fi amee bu ko jéem bu ko xalaat du fi amee voilà li tax ma ne non au mandat mooy troisième mandat moom moo tax président Macky Sall bëgg a sàkkal pexe Ousmane Sonko mi toog du leneen taxul leneen taxul lu dul bëgga a am troisième mandat parce que jéem na ko écarter candidat am yëpp adversaire am yëpp mu fa écarter leen booba xalaatul woon ni respiration démocratique bii dina am moo tax ma ne Pastef tàccu leen seen bopp tàccu leen seen bopp tàccu leen seen bopp parce que vous êtes un jeune parti mais vous êtes une bonne nouvelle pour la démocratie vous êtes une bonne nouvelle pour l'avenir de ce pays da ngeen ñëw ci politique bi jox ci seen waar waaye indi ci lu bees révolutionné ko autour de cet homme vous avez construit une force en même pas dix ans am na partie yu fi def trente ans quarante ans yéen da ngeen a wone seen bopp wone seen taxawaay taxawaay boobu ngeen taxaw moo tax Ousmane Sonko toog fii ba léegi parce que ñëpp ñi nga xam ni woolu woon nañu seet mascarade de justice ñëpp ñu nga xamante ne déglu woon nañu ay wax sànkal nañu pexe seen candidat kon seen taxawaay moo tax mu toog fii ba tey dama ni damay rectifier lu ndaw dafa am sànq ba léegi ñuy wax Ousmane Sonko bul wuy ji procès affaire bi du problème mu procès ndax man mi taxaw 2021 fekk naa ko biir saalam ñu ñaan ko ne ko demal nga wuy ji jógal nga dem bul may président Macky Sall li mu bëgg mooy mu caxat caxate la boobu dañu yaakaaroon ci justice bi mais qu'est-ce qu'on vu justice amu fi kenn du jël paaka di ko daas di ko jox sa noon kon nag du dem ci mascarade boobu du dem ñu koy rendi du dem du dem du dem su naree dem yéen ñëpp jóg leen ngeen taxaw parce que bu sàkkalee pexe Macky Sall mooy sàkkal na pexe démocratie vive le Pastef vive Ousmane Sonko vive le Sénégal